falaat ci journal bi nga xamante ne présenté tout le temps sur la RFM la meilleure des fréquences Assane ma lay en tant que directeur euh, de la RFM tel comme voit sa xalaat moom am na ñuy dugg ci téléphone bi mais am na tamit ñu mën a def vidéo waxtaan mais man damay gis ni ngay argumenter. beaucoup ak comme ni nga doon argumenté ci gén ci euh, Macky Sall parce que je vois que ni actuellement instant bi nga gën am audace wax yenn dëgg yi que gouvernement Macky Sall mooy deug gën a wax gouvernement Macky Sall waxuñu leen ko mais instant avec avec euh, ce nouveau régime bi nga xamanteni xewna euh amna lo xamanteni am nga audace pour wax ko maintenant mais man je vois que lolu <laughs> départu gaynde arrivé muus parce que gouvernement bu am deux mois demagul fenn te lepp lu ni kaas ci biir Sénégal amna lo loo xamante ni que yéen xam nga situation Sénégal comment ça fonctionne gis ngeen muy wàllu économie muy euh infrastructure Ça, dit dire euh, muy cest Sénégal fait pas métti te te te lo ko waral du nouveau régime bi motax tax koy wax de non non non dafa am lu tax nu koy wax kon donc moi je vu que moi je vois que Hassan, euh, amna lo xamanteni tam tamit il faut nous bay ci xel régime bi soog a mënu mënul régler lépp de A à Z ndax li fi né ak li fi bàyyi ak li nga xamanteni état bi liggéeyoon na ko avant ak li ci ay tooxi duuna am fi te waxuñu ko won nu bay waté diko di wax attention <laughs> de dañuy tëb rek pour forcer état bi pour nu xëy lijjanti lolu ni nga koy lijjanti sax. ndax boo xoolee ci benn weer ak ci ñaari weer mi ngi def jaloore yi am solo nag yoo xamante ne que kenn euh, mën nañ wax ne xam nga bu yàgg gars dañ naan def sax nu xëy population bi yëpp di ko wax mais gars yi dañuy liggéey en sourdine c'est-à-dire mooy dañuy xëy di lijjanti lu bëri ci réew mi loo xamante ne que sax xaluma kenn ko waxtaanee fekk gars yi ñu koy faj kon man yaakaar naa ni yëpp balaa ñu koy wax.

lu bëgg yann lo xamanteni xamante mat na 12 ans yakarna naa loolu nan <laughs> euh naan mom moom euh, lu reey lay meuna a quoi loolu mënta ne donc euh, ce qui est important euh nu jox temps touti gars yi xol après qu'est-ce que ça va donner mais en tout cas sama directeur maa ngi koy féliciter sama impression la doon wax ci vidéo bi sànni ko parce que euh, wax sa xalat la ñun ñëpp ci réew mi ne nekk dañuy wax suñu xalat Diomaye mooy Sonko félicitations directeur à Assane Gueye déglu naa vraiment wax sa xalaat journal bi nga est présenté tout le temps sur la RFM la meilleure des fréquences Hassan ma lay en tant que directeur euh, de la RFM te comme wax sa xalaat moom am na ñuy dugg ci téléphone bi mais am na tamit ñu mën a def seen vidéo waxtaan mais man damay gis ni ngay argumenté bokkul ak comme ni nga doon argumenté ci gene ci euh, jamonoy Macky Sall parce que je vois que ni actuellement instant bi nga gën a am audace wax ne dëgg yi que gouvernement Macky Sall mooy dëgg gën a waroon wax gouvernement Macky Sall waxu waxuñu leen ko mais instant avec euh, ce nouveau régime bi nga xamanteni ne xew na euh, am na am nga audace pour wax ko maintenant mais man je vois que lolu <laughs> départ gaynde arrivé muus parce que gouvernement bu am deux mois demagul fenn te lepp lu ni kaas ci Sénégal amna lo xamanteni xamante ni que yéen xam nga situation Sénégal comment ça fonctionne gis ngeen muy walé économie muy wàllu infrastructure cest dit, dire muy cest à Sénégal fait pas métti te T'es, te loolu li <clears throat> du nouveau régime bi moo tax nous, koy wax non non non dafa am lu tax nu koy wax donc moi j'ai vu que moi je vois que Assane euh, am na loo xamante ni tamit il faut nous bàyyi ci xel régime bi soog a ñëw mënul régler lépp de A à Z ndax li fi ak li fi bàyyi ak li nga xamante ni état bi liggéeyoon na ko avant ak li ci ay tuuxi na am fi te waxuñu ko woon nu bàyyi ba tey di ko soog a wax attention <laughs> dañuy tëb rek pour forcer état bi pour nu koy lijjanti loolu ni nga koy lijjanti sax ndax boo xoolee ci benn weer ak ci ñaari weer mi ngi def jaloore yu am solo nag yoo xamante ne que kenn euh, mën nañu wax ne xam nga bu yàgg gars yi dañ naan def sax nu xëy population bi yëpp di ko wax.

ak ban instant la fi état bi nek ak ñaata temps la def ak yan jaloore la def ak aussi yan jaloore la duggagul c'est très important parce que état bu defagul sax eh, ñetti wër wala ñenti wër lu bu ko yan loo xamante ni mat na douze ans yaakaar naa loolu lu <laughs> euh loolu moom eh, lu rëy lay meuna a doon quoi loolu mënta ne donc euh, ce qui est important euh, nu jox temps. Tout gars yi ñu après qu'est-ce que ça va donner mais en tout cas c'est mon directeur m'a ngi koy m'a impression Tu vis wax ci vidéo bi coûte ko parce que euh, wax sa xalaat la ñun ñëpp ci réew mi neen nekk dañuy wax suma xalaat jomay moy Sonko sonkay jomay félicitations directeur Alaaji Assane Gueye déglu na tey vraiment wax sa xalaat ci journal bi nga xamante ne moom ngay présenté tout le sur la RFM la meilleure des fréquences Assane ma lay jox cël en tant que directeur euh, de la RFM te comme wax sa xalaat moom am na ñuy dugg ci téléphone bi mais am na tamit ñu mën a def seen vidéo waxtaan mais man damay gis ni ngay argumenté beaucoup à comme ni nga doon argumenté ci jeune ci euh, jamono parce que je vois que ni actuellement instant bi nga gën a am audace wax yenn yi que gouvernement Macky Sall mooy dëgg gën a wax gouvernement Macky Sall waxuñu leen ko mais instant avec avec euh, ce nouveau régime bi nga xamante ni xew euh, amna lo loo am nga audace pour wax ko maintenant mais man je vois que lolu <laughs> départ gaynde arrivé muus parce que gouvernement bu am deux mois demagul fenn te lepp lu ni casse ci bir Sénégal amna lo loo xamante ni que yéen xam nga situation Sénégal comment ça fonctionne gis ngeen muy walé économie muy euh infrastructure